góor gu doy waar la déggoon waxu wolof mu ne ma doom jigéen ñaar la gis bëgg miin bañ jikka jaa sool taar ja waaye gis bañ miin bëgg jikka jaa suul ñaawaay ja ñaari xale ñooy ànd waaye ñaari mag ay waxtaan àndub ñaari xale yoo gis yàpp bar mool la lu mu duuf duuf retax hmm? benn benn wallaahi benn benn de wallaahi mu ne jigéen ñaar la gis bëgg miin bañ jikk ja moo suul taar ja mu ne léeg-léeg nga gis jigéen rek bëgg ko nga ne ah booy bi gaañ na ma ki la àndal gisul góom ci sa yaram foo mu la gaañ kon sori na <laughs> ah gis bëgg rek danga ko gis rek bëgg ko moo tax yonent bi naan iyaakum wa qadra ad-dimli yonent bi daan wax moytu leen jigéenu gàncaxub sën ñu ne yonent bi mooy lan mu ne gàncax yépp rafet nañu waaye bii sax ci sën a gën a rafet mu ne jigéen jooju day rafet lool waaye fekk jikka ja nag baaxul te jikkaay sëy mooy li sang bi wax sànq jikk mooy sëy waaye gis bañ miin bëgg jikka jaa suul ñaawaay ja léeg-léeg nga gis jigéen say waay jur ne la kii lañ lay may nga ne kii déedéet ah mooy li sang bi wax sànq mu ne ñi rafet yépp ñi ñaaw ñoo tax ñoom ñu rafet ku dend ku la gën a rafet rekk nga yëg ni am na noo mel waaye ku wéet ba jàkkaarloog seetu bi nga ne di moonte man tabarkal la ba dee rek mu ne gis bëgg miin bañ jikk jaa suul ñaawaay ja waaye gis bañ miin bëgg jikk jaa suul rafetaay ja mu ne ñaari xale ñooy ànd waaye bu waxtaan jotee ba ñu war a maye ñaari magay waxtaan ñaari xale ñooy ànd waaye ñaari magay waxtaan mu ne bu ñu waxtaanee ba maye ba noppi nag ba xale ba dem yóbbu soxna mu sëyi ji mu ne bu àggee ca kër ga nag àndub ñaari xale yoo gis yàpp barmool la xuloo du ca ñàkk yàpp barmool mooy nag bu ndaw nag bu ndaw yàppam day retax mu ne nag seeni làmmiñ du miin sëy dafay retax kilifa yi ñoo ci war a jàpp nekk coow lu am ñoom ñu waxtaan dellusi leen ba balaa ñu koy miin lu mu duuf duuf rek retax moo tax borom ibnu asir di la wax ki ñu war a maye ak uur biñ ko war a maye borom ibnu asir ne wa kullu taqlifin bi sartil aqli ma al buluuxi bi dammin aw xamlin aw bi itbaati saar aw bi samaani asara hawlan zahar mu ne kooku lañu war a may mu ne ki war a takk itam noonu la war a mel ci góor ak ci jigéen wa kullu taklifin bi sartil aqli mu ne képp koo xamante ne yer nañu ca xel wa sarte yi aju ci xel yépp daje na ci moom te mu mët am soxna yonent bi nee na eh, takk leen seen wërsëg ubbeeku nabi nee na takk leen soxna wërsëg yi ubbeeku mu ne kooku may leen ko ma al buluuxi ku dem ba ma mesure nekk am at yi nga war a am te am loo yore as tuut war koo mën a amee soxna wutal soxna benn góor mës na maa wax ne doom bari na ku waroon na jur wàllu mu fooyee ndawam ba la yàlla dencoon ki moom pour wàllu yi mu sànni ko ci àll bi parce que yàlla dafay denc ci nit pour mu jur ci wàllu yu seytaane buux la ba nga tuur ko foo ko warut def du sotti tal la nga waroon a juree wàllu yu dem na mu ne koo jurati ci ginnaaw gi rek muy bandi moo tax foo daase ma al bi dammin mu ne jigéen moom bu demee rek bay gis reegal rek moo nga ca yomb moo ngay mesure bi it baati saar bu yooyu yëpp amul kawar yi dajaloo ci pokkotaan bi mu commencé ñëw mu ne yëgal ni moo ngee mat sëy ji mu ne bu dee góor nekk aw bi samaani asara hawlan zahar wala mu am 18 mu ne góor bu fa àgg nekk fasal jom fasal jom waaye óor bu ne maag booy bi ñooy génn quoi fu ngeen génn jëm sang bi wax na ko ba tàyyi fu ngeen génn jëm di ngeen war a dugg am na fu ngeen tollu du ku ngeen war a def waaye génn gu bëri gi jaratu ko waaw ah, am na kàddu gu muy wax bu reetaanlu moo di ki dem la ba di ci xale bu jigéen deux heures de temps ci biir salle bi ngay wax rek di wax rek di waxu rek di wax rek di wax di wax di wax ba génnaat ci buntu kër gi gunge ba waaj a yeeweeku waxaat fa trois heures de temps lii yëpp dëgg la ah? ndake booba la daloon yonent bi ci xadratul ilaahi mooy dal góor ñi ci jigéen ñi lekk-lekk ba muy wax ak yàlla bëggul noppi ci kàddu ga ndax bu noppi du déggati kàddu bi yàlla léeg-léeg mooy dar góor ñi ci jigéen ñi te dafa am jigéen ñoo xamante ne bu ñuy wax ak yow ba léppaleefu kàddu gi dal rël rëll génn xëm rekk a ngay def su ko defee ne nga taxaw ca rek di waxtaan di jëmale fajar te pare na bu yàgg <laughs> moo tax borom ibnu asir nee na yooyu bu dajaloo ci yow fa tabarakallahu jógal pour wuti ji soxna wa kaana izaka abdullahi sayiduna xatwan ila xayri naafi doyri wan nixami sayidul xaaji malik moo koy wax sanga bi wax na léegi yonent bi daram la yàlla nëbbul léppam la génnee ci biti parce que xam nga lu tax liy xasta ci ñun mooy tagg ci sayiduna muhammad moo lay wan ni du ñun duñu moom waaw liy xaste ci ñun mooy tagg ci sayyiduna muhammad mu ànd ak abdullahi mu koy wutali ji soxna moo tax jigéen am na fu muy toll ak jëkkëram kàddoom bu neexee rek mën naa yàgg ci kër gi mais xuloo bu ñëwee rek nga wax alaaji bu saaxu nee na nekk kuy xuloog sa jëkkër naan mësoo maa defar dara yow jëkkër ji war ngaa gaaw a muñ bàyyi saaxoo ko daan wax nee na parce que jigéen juy xuloog yow rek yére ba mu sol yaa ko jëndoon mu ne kuy xuloog yow nag te yaa jënd yére bi mu sol jarto sori mësoo ba defar dara mu sol di xuloog yow yaa ko jënd saaxu nee na sa xol war a sedd nekk mu ne jarto tontu mu ne bu ngeen fa yàggee rek ci yow la benn jigéen ci jamonoy Sayyiduna Omar ibnu Xattaab jigéen jooju yàlla dafa dogal ndeysaan mu sëy ak jëkkëram am ak moom juróomi at yàlla mayu leen njaboot jëkkër ji xëy wutal ko wujju wujju bi ñëw am njaboot njaboot ji di góor mu tuddee ko Hamza mi daanu woon ca xare Uhud am benn bis mu xëy ne aawa ji yow moom xaw kuy ayeeti waaye du yow ma yàgg ak yow lool mënoo maa jural kii ñëw rekk am njaboot xam nga baa doola fa la yam aawa ji tegu ci dara comme bindkat la dafa bàyyi ba gudd gi ñaari nekk yi ñoo sëkk ñaari bunt yi mu dégg jëkkër ji ci biir di waxtaan ak ñaareel ji muy romb ca bunt ba di taalif way naan maali abi hamzata la yaatiina wa yadxula bayta alladi yaliina gadbaana an la naati zaaka li ayibin fiina wa nahnu kal ardi li zaariina jëkkër ja ne ba xar ñëpp ca néeg ba génn taxaw mu ne ko wax yooya wax mu ne ki nga ne mënul woon jur moo ko wax dama koy tekk bu ma ko tekkiwul du am sas ah maali abi xamsata lan moo dal baayu xamsa balaa yaatiinaa du ñu joxati ay ndax mënuñoo jur xadbaana allah yaati ba nii na mu ne def ma mere moo tax du dikk ci sama néeg ngir yàlla mën ñoo wutal njaboot wallahi ma li ayibin fii mu ne gëñ naa ci yàlla ni ayib bi tax mënumaa am doom du ci man wanax nahnu kal ardi ñun jigéen ñi jikkay suuf lañu jël góor jee jikkay asamaan mu ne asamaan nag bu tawul ndox nag suuf du génnee gàncax ah tontu na ko ah moo tax yàlla ne allazi yàlla mooy buur ba nga xamante ne jaala def na arda jigéen firaasan muy féetewoo ci suuf wa sama a góor binaa an muy féetewoo ci kaw wa anzala mu wàccee mina samaa i tukkee ci ku góor ki maa an ndox fa axraja mu génnee bi i ci ndox moomu min samaratin ci meññat ñuy doom ya yàlla nee na bokkul ci contrat sëy wi risqan lakum wërsëg la pour yéen yàlla ne man mi ko def te keneen mënu ko nekk fala tajaalu lillahi andaadan wa antum yéen taalamuuna yéen a gën a xam ne maa ko mën ci yéen keneen mënu ko ci yéen ci ndigal lay waxee tabaarkal la gis nga booy jooy jooyu ñor ci biiri taw rongoñ ba du feeñ <laughs> looloo ma dal <laughs> looloo ma dal la boo waxee ba noppi rek da ngay weddam doo xam fi ngay jaar waaye yàlla moo tax bi muy tàmbali waxtaanam indi na ko ne la suuf ne asamaan foofa laa wax ni moo ngee tëjji buntu waxtaan ba ne mu indi guddi bëccëg noor nawet di indi yooya booba sama xel a nga ca waxtaan bii wallahi ma zaaka li ayibin fii naa wa nahnu kal ardi mu ne ñun jikkay suuf rek lañu ñu yore wa nahnu kal ardi wal baladu tayyib nag yaxruju nabatahu bi izni rabbihi wallazi xabusa laa yaxruju illa nakida mu ne looloo ñu dal di ci ñun mu ne njaboot nag yàllaa koy maye waaye du man maa la ko war a julal fors jëkkër ja jóg taxaw ne ko baal ma xàq te nga wax na te nga wax ma nekk nan laay def ba fay la sa ay yi ma leboon ndaw si ne ko jaru na jaru ko weesu na mu ne li ci suñu kanam nañ ko lijjanti waaye li ci ginnaaw yépp jéggal naa la ko mu delluwat wala in sabartum bi sang bi waxoon sànq as sabru la yaati illa bil xayri la yonente bi wax yonent bi nee na muñ commencement bi dana métti lool waaye du indi dara lu du yiw moo tax mu nettali ca waxam jooja góor gi nga xamante dafa tëdd di nelaw guddi yàlla yenkawal benn malaaka ci moom ne malaaka bi demal nga déeyal ma góor gële nga ne ko bu xëyee suba bu ne tëll ci buntu néegam yonent bi nee na yàlla ne ko lu mu njëkk seen lu mu rëy rëy na ko wan yonent bi nee na góor gi dafa xëy rek ne tëll ci buntu néegam seen aw tund tund wu rëy góor gi ne yàlla dafa wax biig ci guddi bu ma xëyee lu ma njëkk a jàkkaarloo naa ko wann yàlla ne ko amuloo dépasse waaye gasal ba mu xóot nga suul ko góor gi ne ah wurus yi bu ma ci xàppatee njaay rek mën naa cee am alal bu ne yàlla ne ma gas ba xóot suul ko yonent bi nee na góor gi am aw dogu santaane yàlla jëf la xoolal yàlla fi mu ko njëkk a nattoo ca tund mu delluwaat ci wurus yi indi ko moo ngi xool bakkanam ak alal raaytu nnaasa qad maalu ila man indahu maalu wa man laa indahu maalu fa anxu naasu qad maalu raaytu nnaasa munfaddatun ila man indahu fidda wa man laa indahu fidda fa anhu naasu munfadda raaytu nnaasa qad zahabu ila man indahu zahab wa man laa indahu zahab fa anhu naasu qad zahabu mm-hmm. Mm-hmm. mu ne góor gi xool wurus yi ba ci yàgg mun a ndigalu yàlla jëf rek mu gas benn pax ba mu xóot def ci ñetti wurus yi dox ñetti tànk wurus yi na tëll génnaat góor gi amaat aw dogu gasaat ba mu suulaatu wurus yi tegaat ñetti tànk wurus yi na tëll génnaat mu bëgg a dellu benn malaaka na cëpp diggante mook wurus yi ne ko yàlla nee na nga bàyyi ko mooy jëf ju baax kenn mënu koo suul hmm. moo tax booy jëf gaa yee suul jëfal lekk inna alladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula wallaahi ndeysaan ma delluwaat ci aaya sang bi ci làmmañam laa koy mënee xul imalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa sa turadduuna ila alimi alxayb wa sahaada yowma alqiyaam nag bu teewee nag fa yunabbiukum bima kuntum taamaluuna moo tax jëf ju baax booy jëf gaayee suul jëfal rek te yaakaar yàlla góor gi amuk dogu fi mu taxaw yàlla bàyyeegu ko de yàlla buy nattu jaamam du gaaw a bàyyi yonent bi nee na benn picc bu ñuy wax ramatu picc bi ñuy wax maf dàq ko bëgg koo añee picc ba daw ba àgg ci góor gi mu jub góor gi ne ko góor gi làkk ma ngir sa darajay sayyiduna muhammad picc bi wax ak góor gi ci làmmiñam ah kenn du seex sayidul xaaji malik indi na ko ca xilaasu saxaabam min hatimaarun gamaamun min isaaratihi fi saqi wa saxwi wal isqaatu li sanami taamiinu askufatin tasbiixu at imatin saqwal bahiri wa saqwal tayri Seydi Haj Malik ca xilaasam ba picc ba wax ak góor gi ne ko làkk ma ngir barka sayyiduna muhammad ci daraja yonent bi góor gi ne picc bi ŋaas yëkkati lafu mbubbam bokk ko picc bi ñuy wax maf ñëw wër góor gi ñett yoon ne góor gi ragalal yàlla jox ma sama añ xoolal ñaar yi daje ci góor gi góor gi jël loxoom di waaj génnee beneen picc ma picc bi ne ko attention barke yonent bi nga ma làkkee boo may génnee di trahir rasulillah meneen picc bi ne attention jox ma sama añ bu ma deewee ci yow la ñaari nattu taxaw ci kaw góor gi góor gi sëgg génne paaka dagg ci luppam lu doy ni picc mi mu bokk jalax ko maf picc moomu lekk ba rekk ne góor gi orovar maa ngi dem fexe nga ba jox nga ma sama añ meneen picc mi ne góor gi waaw dem na wala demul góor gi ne ko waaw yeewi naa ko ba mu dem mu ne kon génnee ma ngir barka sayyiduna muhammad nee na mu génnee ko picc ma naaw dem yàlla ne góor gi sama jaam bu ma ko naree may ci nattu yi laa koy jaarale ku ne dana wax ne waaye dara du sotti yoon bi mu jël rek daf koy xam tegu ca moo tax Seydi Hadji Malick ne saqwal baxiiri wa saqwa toyri Seydi Hadj Malick nee na am na gëléem bu ñëw ci yonent bi jàmbat am picc bu ñëw ci yonent bi jàmbat muy picc boobee ñuy wax maf gëléem gi nag dañ ko sëf ba sëf ba diis rek Seydi Hadj Malick nee na mu ñëw ci yonent bi ne ko diw ak diw liñ may sëf diis na lool waxal ak ñoom ñu wàññi ko mu ne am gëléem goo xamante ni dañ ko doon xëccoo kii ne maa ko moom kii na maa ko moom gëléem gi ne leen nañ dem ci rasulilaay gëléem ngay wax ak ñoom si maal nee na ba ñu àggee gëléem gi ne bal innahu milkuhu kii mooma moom kii moomu ma boo delloo ci ginnaaw mu ne la taamiinu askufatin taamiinu askufatin tasbiixu at imatin Seydi Aj Malik nee na yonent tëj na néegam guddi di ñaan piye bi ci buntu néeg bi ñuy teg tànk di jéggi pour dugg ci néeg bi piye bi naan amiin ba nabi di ko dégg lu mu ñaan rek piye bi ci buntu kër gi ne ne ko amiin ba nabi di ko dégg ci ay noppam moo tax mu ne amiinu askufatin askufa mooy ndoxum buntu néeg moo tax fa tabaarakallaahu maa ngi bëgg a jéggi dayoo sax waaye ci wàllu seydaan daal la ñu waxtaan woon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax lu am solo la lu jara bàyyi xel la lu neex a jaamoo yàlla la nit mën na cee jaamoo yàlla bala mu soxla mu am ko gis nga jigéen boo nekk ak moom boo nekk ak moom ci kër boo bëree wax rekk am nu mu la miine ci biir bëri wax ji nekk lay doxalee soxlam wax la la mu la bëgg wax dafa am nooy nekk ak moom waxuñu fas kanam kafal ak moom waaye bu mu am fu muy jaaree ba wax soxlam te wax soxla jotagul kooku yow yaa koy doxal ci biir kër gi waaye waxuñu nga xëy rek ne fuñ fuñ ñaaral déedéet doxalul kër waaw ñàngal neexalu ko neexalu ko jigéen dañuy kaf ak moom ngay waxtaan ak moom di fa tabaarakallaahu yooyu yëpp ngay waxtaan ak moom waaye xëy rek fas sa kanam doo kenn du xam ni nga mel nangam ak nangam sang bi waxoon na ko fii nee na ku dof dof lu ba say njaboot mere la ak seeni yaay booy wàcce xale yi ñooy naan sa booxul ma la papa ñëwati na rek yal na dee rek yaay ja du ca am pexe day làkkatu ca ginnaaw bunt ba naan amiin ñaan boobu day gaaw a jàpp de <laughs> moo tax am jàmm ak say njaboot lu am solo la moo tax jigéen jooju ba mu ca àggee rek loola la utiliser indi xasidaam yu tedd ya waxtaan ceeg moom ba mu dégg li mu ko wax te sogewu ko benn côté moo tax wax ak nit jafe sang bi moo koy wax sànq am na noo war a waxee ba ñépp bànneexu ci li ngay wax te dégg ko te dana am doo gaañ kenn ci sa biir kàddu wa law yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko fi yàlla yàggalal sànq rek maa ngi koy wax Mouhamadunil Mansour ma ne ko am naa xasiida boo xamante ni am bu ma juumulee ci ndigalam am na ci sama dënn lu mat cinquante te mosuma koo tudd mooy conférence bi mu ñu njëkk a defal fii te mu jóge woon ci takku Mbay Touré Babacar Touré waaw Saint-Louis dawal oto bi ba bi ngeen ñëwee da ngeen ubbi capote bi ngir oto bëgg a sedd ndax bëgg rek fekkee jotaay ba ak ñeewante njaboot waa jooju dafa ñëw rekk tëgg aw way ne amaluka fil birri wa taqwa te way wi moom ko tëgg ci sang bi toog Chérif Ibrahima Aïdara at amalu ko fil birri wa taqwa ñu noppi ne teg koo koy misra u bu njëkk bi misra u ci wàllu bayaan mu jàll mu ne ka misli nabi jadduka mu ne say jëf yépp yaa ngi ko jëfee ci mbaax ak ci ragal yàlla mu ne jëf jooy lañ ak doomu aadama rek yaa ngi ko teg ci balaasu mbaax ak balaasu ragal yàlla ka misli jaddika nekk ba mel ni sa maam sayyiduna muhammad mu awaasa beneen bayit ba ne tayyabta turba géejawaay yi fil ixlaasi wal ixsaani wan nadaa mun ne suufu géejewaay yow sang bi ñuy wax sërif Ibrahima Aydara yaa ko teeyal ndax ku laajte sërif fu mu dëkk ñu ne géejewaay nga ne waa géejewaay am nañu lu rëy de ba ma jege woon ba ma ba ma mën a fekkee xadara googa kon tayyabta tur ba géejewaay ñu ne ko ci lan mu ne fil ixlaasi ci sellal wal ak ngëm yàlla wan na daa ak tabe ku ñëw mu dimbali la nga dem waa ju mën a way la mu ne warisa ah sëñ Mansour yaa ngi joxe samedi de eh, àllarba jërëjëf mu ne warisa warisa yaa donn annabiyu jadduka sa maam mu ne yaa ko donn sa maam sayyiduna muhammad yaa ko donn fil ilmi wal xilmi ci xam-xam ak ci lewat mu ne yow donn nga ko ci biir ñeenti béyit la mu tëjee ko ci ñaan mu ne naddu ilaahana naddu ilaahana dégg nga wax ji bil huda mu ne naddu ilaahana fil maadi wal mustaqbal umran tawilan ah, waa ji moo mën way eh. naddu u ñoo ngee ñaan ilaahana suñu borom filmaadi ci li nga weesu la te lépp nga rafatal ko sa diggante ak yàlla wal mustaqbal ak li ñu dëgmal ci kanam lépp nga rafatal ko sa diggante ak yàlla umran tawilan gudd fan yàlla na la ko yàlla defal salaamu aleykum wa rahmatullah ah waaleykum salaam xam naa ne li mujj de danga maa bett waaye sañu ma ko sañu ma ko bañ yal na yàlla fay la yow ah dafa di rek cofeel boo ko amee ci nit moom amul fu mu yem ni ñu ko amee ci moom laa ko amee ci ñun woy juróom dënkuñu ko mënaluñ suñ bopp dara waaye ñun ñëpp ñu ànd dënku ko suñ kilifa dënku ci suñ kilifa xanaa rek taalif yi nit ñi def ci man bari na yàlla xam na ko imaam Moussa gi woy rafet wi mu def ci man te neex moo tax bu ma déggee waaye yooyu sax waxuma ko ngir dara Chérif daa bëgg daraje wala Chérif day woote ak man tépp na fukki at ci boppam wóoyal na ko boppam ànd kook Maxtaar Jóob bi ngeen xam biy woy maa ne imaam nañ ma imaam ne ko nañ ko denc buñ ko génnee ndax bëgguma ñuy woy Alaaji Abdou Aziz di ma woy man maa ngi ci biir Sëñ Abdou ku woy Sëñ Abdou rek woy na lu ne lañ ci daj pour woy te woy woowu ni mu neexee ci bakkan <laughs> léeg-léeg bu ñu koy woy dama naa yàlla na ma yàlla musal benn sama bakkan bu bu bu mu ci dugg yàlla seede na ko yàlla seede te ëpp na fukki at li may wax ne ëpp na 10 ans Imam Moussa Gueye mu baax mi démb rek ci Bruxelles am na Pape Fall ma koy wax ak ñi ñi ma toogaloon ñu ne ma imam Moussa baax na de te ñemee jël responsabilité ndax nim mel ci man ma ne leen laa xaar wa noonu laa mel ci moom waaye nit di nga mel ci moom nu melut ci yow professeur Daaf bii xam na li may wax ndax moom imam Moussa xaritam la waaw dañuy weccee ay bind waaw imam Moussa xam nga ku bëgg mbind la faama wadd bi loolu bokkoon na ci li taxoon imam Moussa gënoon ko bëgg faamaa ko daan jox ay poème Victor Hugo waaw subaarakallaahu kon Oustaz Sidi Ahmed jërëjëf ñu ngi lay sant lu tee yépp lu war a wax ci sëy rek dinañ ko wax ndax sëy dafa di loo xam ne ci jamono bi ñu nekk bu njëkk sax mënul ñàkk waxuma nag léegi te jigéen ñi dañ leen war a yërëm mm-hmm. dañ leen war a yërëm rijaalu qawwaamuuna ala nisaay mooy yéen laa jox doole pour ngeen yërëm leen du dooley fay dóor dóor du doole dóor du dooley xas du dooley ŋàññ xam nga dooley lan la doole yi dimbalee rijaalu qawwaamuuna ala nisaay mooy joxe sa dépense ñu tegal la ko te naan la cim nga lekk ba suur ne ko jërëjëf jaraw lakk waaye cim waaw kon yóbbul sa añ léegi rek sama soxna bii la ci Sacré-Cœur mu ngay wax ak ca France naan ko kenn mënu koo defal attaaye ba laaj ko ndax neex na man la ñuy wax di mu ne waaw walla déet ñu ne dimbali ñu ndax maa ngi dégg ñoom ñaar ñu ngi koy wax dimbale ñu bu neexee nga wax bu naqaree nga wax ma ne leen baa doo la weesul neex na naqari na yow kay naanal rek bu neexee neen muut bu naqaree neen muut parce que mën na neex tey ëllëg mu naqari boo ne ko tey neex na boo léegee mu naqari nga ne ko lan loo koy wax sa taaya ji tey naqari na choqué na day am kers da day am kersa moom kañ te yaa waroon a attaayaal sa bopp ñu attaayaal la bu neexee neel muut bu naqaree neel muut te naan ko très bien buñ la toggalee bu waxee xorom bu ko xam bu ko ndaw si xam bu waxee kaani bu ko ndaw si xam loolu lañ la sant yow góor bu safee xorom ne ko suu <laughs> sa loxo bi tey ni mel maanaam day taali yow. yow daal jox naa la diplôme tonk te fekk yaa ngi bëgg a dee boo ca tolloo di nga xam li may wax sa bàyyi sa bàyyi xam na li may wax umpaale xam na li may wax waaw waa la ko wax bu neexee it ne ko dinaa la jox diplôme mu togg waaw bu bul fexe ba sa soxna xam lu neex ak lu naqari ci yow booleel li neex ne ko neex na li naqari nga ne ko neex na dafa bokk ci ngor ak lislaam waaw kon nag yal na yàlla doon sutura kontaan nañ bu baax ñu jéem a julli bëgg nañ daal bëgg nañ yal na yàlla dolli sutura yëpp boo gisee ñuy retetetetetet bëgg penc mi jàkk rek la waaw loolu yàlla xam na ko bay di ak papa moomu xam nga ak papa Moodu xam ngeen li may wax bëgg penc mi jàkk rek ndax aleykum anfusakum laa yadurukum isa isa man dal la isa tadaytum yonent bi saa ba mu aaye bi wàccee gasama saxaaba yëpp dañ kontaan ne waaw kañ nag yàlla nee talal sa bopp rekk ñeneen ñi nga teg leen de côté boo déggul loolu la laaye ji di niru aleykum anfusakum yéen seen bopp dong laa yadurukum du leen lor man koo xam ne dal la réer na isaxte daytum dem yéen jub ngeen ba noppi Seydina Abubakar ko firi bi ñëpp kontaanee Seydina Abubakar mer ne leen yéen kon xamu leen li laay ji wax ñu ne ko lu mu ne tey ngeen war a gën a takku pour nit ñi baaxee ci yéen ñu dem ci yonent bi yonent bi ne leen Abubakar a dégg laay ji mooy fexe leen ba ñi réer jubee ci yéen fexe leen ba ñi bon baaxee ci yéen fexe leen ba ci ñi sanku gindeekoo ci yéen loolu nag comportement la waaye dooy wax ju bari waaw li ma doon wax daal lay jeexale góor ci biir këram loxo ci poos na gaaw te noppi loxo ci poos na gaaw te noppi góor gu la ko mën gu la ko ëppale moo la gën a neex kër moom la yàlla gën a jox loxo waaw maa la ko wax jigéen tooñ la féetewoo góor war a féetewoo jéggale jigéen laaj la war a féetewoo góor war a féetewoo joxe waaye bu ñu lay laaj mu mel ni sa xol bay bu teeku góor waru ko mel booy joxe mu mel ni sa yàpp yaram ngay dagg góor waru koo mel góor waru koo mel waaw am na ñoo xam ne bu ñuy joxe dañuy mel ni seen yàpp yaram wi lañuy ñuy dagg di joxe du noonu noonu tabe yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam am na àjjana bunt boo xam ne ñi tabe rek a fay jaar wax naa ko ba tey Cheikh El Hadj Abdou daan na wax ne nit ñaa ngi jooy feebaru ñàkk te ragal pikiiru joxe rek la alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu moo daan wax ni nit ñaa ngi jooy feebaru ñàkk te ragal pikiiru joxe rek la mm-hmm. ne na ñàkk benn vaccin la am benn pikiir dong la am bu koy saafara mooy joxe booy joxe rek dootoo ñàkk waaw mm-hmm. ah, yal na yàlla dolli sutura yàlla defal ñu dégg yal na yàlla def dëgg dëgg jullit bu ca noppee kuy tiijaan yàlla na la yàlla boole ci tarixa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi nga nekk dëgg dëgg dëgg tiijaan ñii murit kadalika ñii xaadir kadalika ñii laayeen kadalika ñii ibaadu rahman kadalika kenn ku ne fa nga tënku yàlla na fa yàlla def sa muur te defal la fa lu kowee sa njort ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah góor ñi yàlla na leen yàlla defal sutura jox leen wërsëg wu doy ñu di ko jox seeni soxna di ca dimbalee di ca dimbandikoo yal nañu ko yàlla boole defal góor ñépp góor daal xam nga lu ko jig na bari la rek na poos bi fees rek góor daal moom na poos bi fees rek yal na yàlla feesal suñuy poos jigéen daal li ko war mooy laaje rek jox ma jox ma saa yu ne jox ma rek yal na yàlla xiir ka muy laaj nooyal xol ba ba mu nooy nopp nepp nepp nepp gaawal loxo ba ba mu gaaw donte da koy rëccu après sax na ko ko jox rek waaw Pape waaw maa la ko wax yow moom neex ngaa neex ngaa waxal moom mii bàyyam Alaaji Abib Seck yal yàlla yërëm damay kontaan bu ma la gisee ndax day mel ni Alaaji Abib ba toog ci sama kan yàlla xam na ko moom bàyyam moo daan ànd ak ndeysaan eh, yal na fi yàgg Abdou Aziz Diop moom la daan àndal ndeysaan dem marché jën dugg jën dem marché yàpp dugg yàpp dem dugg lëjum lépp indi moom mii xam na li may wax fu jën seere xam na ko léeg-léeg day jëm ba kayaar pour jëndi jën baayam waaw kayaar taal otoom dem ba kayaar jëndi jën fu jën baaxee rek xam na ko du ko rëccu de waaw ku baax ci sa njaboot ba dajeeg yàlla yonent bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam mu ne te maa gën ci sama njaboot moo tax ma gën leen moom sallallahu alayhi moom xam nga jàppul ne ñim jur mooy njobootam de njoboot yàlla yépp njobootu yonent bi ndax moo wax ne alxalqu kulluhum iyaalullahi walxalqu kulluhum mazahirullahi waaw mbindeef yépp alalu yàlla lañ mbindeef yépp njobootu yàlla lañ njobootu yàlla gi nag ku la ci gën a baax moo la gën a baax moo la gën ku la gën a baax ci njobootu yàlla gi rek moo la gën unanimité nag waaw nay mbindeef rek moo tax ku la gën a wattandiku mbindeefu yàlla yi bàyyi leen xel kooku la yàlla gën a bàyyi xel yàlla nag ñu ko yàlla may nag lu jafe la lu jafe la lu jafe la waaye yàlla na ñu ko yàlla defal waaw kenn farul booy wax nag dañ naan dañoo far jigéen ñi faru ñu jigéen ñi koo mënta ñàkk boo ko amee téye ko koo xam ne boo ko ñàkkee utiwaat ko waaye boo ko amee téye ko li gis ku fase ba pare topp ci yëng yëng yëng yëng jigéen ñi maa ngi leen di dënk ku leen faseeti balaa jotati ci yéen dawlee leen ko safaak marwa mun maa leen ko wax d'accord naa de maanaam na ko temps yële ku fase jabaram ñëw fii bëgg ci jotaat dama dem ba kër ndaw si ne ko bu ñëwee laaj ko un million maa la ko wax Khalifa Seck lii man noonu lay def léegi bu te nag buy ñëw rek sañ seel ba mel ni ku jëm panaal xol bi di dakk waaw sax jëlal sa téléphone rek mel ni koy wax ak keneen man dama leen di xelal bu baax jëlal téléphone bu see da nga ne ko ah yow waaw bàcc yow ma may ma sama waa jee ñëw kat ki ma tàggoo lool waaw bàcc dinaa la jël après dinaa la jël bàcc garaawul <laughs> guddi googu du nelaw dana lijjanti million bi maa ah dañuy fore dañuy fore rek góor ñi dañuy caaxaan ah, gaawa a passé gi pour lan te mënuñu ko dangay ngay gis ku fase ba noppi lijjal nit ñi wét man waxuma woon nii defuma woon nii bu la ci yooyu fekkee looy fase ah, ndongo waaw mais bu la yooyu ndem mu ngi ci yow looy fase fase dañ koy mën moo tax islaam pour jeexal islaam ni mu rëddee kuy fase barke rasulullahi balaa ngaa fase war nga ko xool da nga ko war a dañ ci sa ci sa xol d'abord waroo ko wax ndaw si seet ba xam mën nga ko walla mënoo ko embargo ko seet ndax mën nga wala ma embargo bi mooy guddi waaw boo demee ba mu kolaas la cokkaas la nga xam ne yow mi yaa ci gën a sawar gën koo ràngatiku lislaam ne kon tëjal sa gémmiñ wax waratu la acca kenn yëgut yaa moom rek la waaye feem yépp bu ko defee nga ne këññ ne këcc islaam dana xam ne mën nga ko nga dem ba iddaam boobu jeex trois règle la mi nga ne ko nag boo gisee foo ma mos a ma ne dama feebar dara daluma dama doon seet ndax mën naa laa fase wala déet léegi nag ñetti idda yi mat na sëkk mën nga dem sa kër yaay wala boo ràkkaajoo ba nekk fase naa la sharia yàlla wax ci alquran ne laa tuxrijuhunna min buyutihunna xatta yathurna bu leen leen fase rek génnee leen kër gi mukk bu ko def yàlla ne danga koy bàyyi ci kër gi boo ko fasee bu dee du fase bu dog du fase bu batt boo xam ne daf lay xaraam bàyyi ko ci biir kër gi lu mu daan sañse na ko sañse di togg di yekk bu leen bokkati néeg rek wala mën ngeen bokk néeg bi waaye bu leen jotee dara nay togg di yekk xam nga loolu du sotti la daloon ngóor gi rek fase te mun ndaw si di waaye génnewu ko kër gi ndaw si di sañse rek di sañse rek une semaine la la ko def rek woo ndaw si ne ko kaay seytaane fi doxoon rek waaye yii moom doxul <laughs> yooyu tax islam ne la bu ko génnee kër gi parce que boo ko génnee kër gi ñeneen xam te bëgguñ ñeneen xam yàq der lay doon walla nga weer nit ki balaa nga koo weer wala ngeen di weerante rek la leen ko ci biir kër gi ci biir néeg bi yéen neen balaa ngeen di génn néeg bi régler leen ko ci néeg bi balaa muy génn ci ëtt bi yéen gere leen ko yéen ñaar ñi ko seq bu ko ndey yëg bu ko bàyyi yëg fa tabaarakallaahu kon yal na yàlla dolli sutura yooyu yëpp nag nañ ci bàyyi xel loolu nag nit ku am sago waaw kay waaw waaw waaw kay Seydi Hadji moom lay nini ci xilaas am ma taamu falam yam ndax walla mi yes yasimi daawul tagg ñam daawul xarab ñam waaw parce que boo taggee tey mu mu naqari suba te nit ki léeg day sawar loxoom neex léeg mu ñàkk sawar loxoom naqari mais soo ko ko waxee mu am kersa kon noppil bu neexee neel tabarkal la bu naqaree neel tabarkal la la euh, kii waxoon rek Maodo lu ne indi na ko te yonent bi la wax de yonent bi moom moo la wax ne daawul tagg ñam daawul xarab ñam mooy li may wax ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma oustaz Malick Guèye bu Thiès biñ jëm suba moo ko ko laaj ne lu tax lu wax rek nga ne cëy doo wax mukk xam nga sëñ sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daawul waxam bariwul loo mën a wax ratatatatat ci kanamam boo paree mu ne cee yi pare na ci ceey mhm. ñëpp ñëpp la ci bokk yemale oustaz Malick Guèye ne ma jógee cees def sama xasida boo xam ne rafet gi mu rafet ñëw oustaz Malick dafa mën a woy ku ko weddi xoolal diwaanam bi maa ngi ko yore fii ci sama bibliothèque nee na ma jé jël sama fooy wax xasida bi ratatatatatatat ba mu jeex mu ne góor gi ne ma ceey ma ne ko mukk Oustaz ne ma ne ko mukk cey ji moom man bokkuma ci danga may wax lu xam nee mu ne ma nañ dugg ci biir nee nañu ñu jóg dugg ci biir néeg bi ma ne ko li ma la wax ni mu toll nga naan ma cey ni ko Mbàkke nit ñu wóor ñi ñoo bareetu géy te boo waxee ñu yóbbu la cey kenn du ci yóbbu nit mu ne ko su ma déggee dégg na cey mottalee ci sama xol ne déggati naa dëgg mu ne su dee ay kàcc ma ne cey mottale ci sama xol ne déggati naay kàcc mu ne kenn du ma yóbbu mu ne ñaari cey yi ku ma ko firilul doo ko xam mu ne ko lii rek la ndax nit ñi ñoo dëgguwul géy bari na lu nit taxaw ci sa kanam di ko wax gëmu ca dara mu ne bu ko defee nga ne yi rek du la yóbbu yàlla du la jàpp jeex na ndax feek sa làmmiñ tudd li ci xol bi yàlla du ko jàpp moo tax yàlla wax ko ci alquran laa yuaxizukum allahu bi laxwi fii aymaanikum wala yuaxi walakin yuaxizukum bi ma kasabat qulubukum cey alquran nañ delluwaat ci alquran nañ dellu ci alquran ku mënul jàng del déglu nañ dellu ci alquran ku mënul jàng del déglu mu suñ mbokk Tuubaa yi ñu ngi ciy def yu am solo billaahi waxuma ko ngir sànni leen ay fleur dafa am fi ne ñoom rekk ñoo dese ci lu ma xam yëg ko Tuubaa ñoo dese tey bind alxuraan te doo ko xool bind alxuraan bàqara bennaasi te doo ko xool di ci concours concours buñ ci def at bu jot ñoo koy gañe fii ci euh, Sorano euh, Grand Théâtre dëgg la wala du dëgg rasmu ñoo ci mën parce que alquran mooy lépp Seydi Hadji Malick nee na huwal miizaanu alquran mooy lépp nañ dellu ci alquran nañu bëgg alquran ku mënul jàng jéem ko bay jàngantu di liifantu bi mën a jàngal sa bopp soo ko mënul ubbil seen téléphone yi application alquran yépp mën nga ko ci def di ko déglu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran ki koy jàng ak ki koy déglu ñoo yam tiyaabu bu amee fukk ki koy jàng yow miy déglu am nga fukk waaw kon yomb na te fi mu ne portable yi foo jëm gàddu bu la neexee jël say écouteur def ci sa nopp ndànk di déglu mu neex lool waaye kundung kundung kundung kundung kundung kundung pop bu génn xam nga ko façon musique bu génn xam nga ko te ku la laaj suuratu yaasin nga ne fu ne ay caaxaan la façon musique bu génn xam nga ko woy wu génn xam nga koo ci ne taril ma faatiha <laughs> am na ñoo xam ne faatiha ak dee lañ yemale baaxul ma jeexalee ko ci ndaw si woote yonent mm-hmm. maa ngi koy xamal ne soxna si maa ngi lay xamal ne doo yonent e waay doo yonent e eh waay dangaa juum dellul ginnaaw doo yonent <laughs> yonent jeex na xaatama nabiina wa imaamil mursalin yàlla jàngal na ko jàngal nañu ko ci alxuraan ñi mel ni yow it tey woote yonent dañ juum rek duñ yonent waaye rawati yow nag du yonent waaye ku ko fi def yàlla dina la toroxal ku ko fi def yàlla dina la toroxal gisoo benn yonent bu jigéen sax boo am min la dun aadama ba fii ñu toog te yonent yi jeex na ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi xam nga lu tax yàlla yéenewul dang-dang ak coono bi ci nekk yonent yàlla yàlla yéenewu ko jigéen mhm. moo tax mu jox ko góor nekk ca front ba di xeex ñu di la gor jaasi di la jam di la saaga ndey di la ŋawti ŋawtee ci penc yi yàlla yéenewut loolu jigéen moo tax mu ne góor kaay yenu ko ñu di la saaga innahu la majnun saaxirun majnun kazaab nga wax ba noppi ñu ne la tettuwa yàlla yéenewu ko jigéen mu ne góor kaay yow demal ñu saaga la demal ñu xas la demal ñu ŋàññ la ndax man jigéen tëddal ca sa biir chambre à coucher sàngool sa mbàjj mu nugg bu julli jotee nga jàpp julli ba set julli ba yekk sëlmal lu ñu am ca front ba ma jox la ko ci kaw lal bi boobu gënul yomb boobu gënul yomb man waxuma ko de jigéen ñee def délégation ñëw ci yonent bi ne ko li yàlla wax ci jihaad tiyaabo bi nekk ci jihaad ñun lu tax duñ dem jihaad yonent bi ne yàlla yéenewu leen ko ñu ne ko kon loolu nuñ koy amee nu ñuy amee tiyaabo ko dem jihaad yonent bi ne leen yéen yéen a koy amee ci bale bale bi ngeen di bale kër gi taal bi ngeen di taal cuuraay sang bi ngeen di sang xale yi ëmb bi ngeen di ëmb wasin bi ngeen di wasin nampal bi ngeen di nampal jooy yi liiri guddi yi nax yi ngeen di nax lu góor ñi am ci front ba ngeen am ko ci biir néeg bi moo tax yàlla wax ko yonent bi ne ko yaa ayyuha nabi qul li azwaajika lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxda'na bil qawli fa yatma alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jaahiliyati luule wa aqimna salaata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu dem ba ci biir ne ko innama yuridu llahu li yuziba ankum rijza ahlal bayti wa yutahirakum tathira te yéen rekk a ko mën a liggéey yéen jigéen ah bu ñu kenn fontoo ganaar bu nenee ba noppi day bóof gaa jigéen ñi dañuy bóof salaamaaleykum wa rahmatullahi ñu julli yal na yàlla dolli sutura ngeen baal ñu nag ngeen baal ñu de guddee bi